لأن رمضان يجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ali Imran TV ci ñi nga xam ne ñooñu topp ci Facebook wala ñu topp ci YouTube wala ñu partage ko ba am ñoom ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di dellu si ci sunu jotaay yi nga xam ne moo tudd hadisu bis bi hadisu bis bi tey nii la hadis bi tëddee. qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al abda la yatakallamu bil kalima maa yatabayanu fiiha yazillu biha ila nnaari abada maa bayna al mashriqi wal maghrib alayhi salaatu salaam nee na ci hadis boo xam ne muttafaqun alayhi nee na nit day wax léeg-léeg ab baat xeeb na baat ba bàyyiwu ca xel jàppiwu ko dara jàppiwu ko dara xeeb na baat ba jàppiwu ko dara waaye nee na baat booba daal di jël kooku teg ko bakkaar bu tol ni ñu dugal ko sawara muy dugg ca biir a biir a biir distance bu tol ni diggante penku ak sow te benn baat rek la wax mbokk yi ndekete kon làmmiñ ku jara sàmm la làmmiñ lu jara sàmm la inna al abda la yatakallamu bil kalima waa ji benn baat rek la wax benn baat waxuñu dugal ko sawara waaye ñu nuural ko ci biir naq ko ca ba digganteem ak bopp maanaam kii ma jéeg ca suuf fam nekk mu ngi toll ni diggante penko sow toll ni diggante géejawaay ak jam ñaajo de déedéet loolu dafa gàtt diggante Dakar ak Thiès loolu dafa gàtt diggante penku ak sowu la allahu akbar kon ndekete sàmm aw làmmiñ baax na lool bu nu boole suñu hadiisu tey bii ak bu démb ak bu bërki démb ñoom ñett ñëpp ci lenn lañuy wax mooy sàmm aw làmmiñ mbokk yi mu ngeen xoolee làmmiñ niñ ko def sama bés ak seen bés dañ koy yeew ak ñaari buum ñaari sidit lañ ko yeewee buum moom làmmiñ mu ngi dëgër yemuñ ca ñu miire ko ak i bëñ 32 dents ñu miire ko moom làmmiñ ak i bëñ yemuñ ca ñu baase ko ak i tuñ ñu baase ko ak i tuñ làmmiñ dana rëy dana xëccu ŋaxal gémmiñ gi tuñ yi sore mu wax luy toj penc dellu siwaat làmmiñ loolu lay def moo tax alayhi salaatu salaam daana wax ni bu xëy bu cër yi xëyee dañ naan làmmiñ ittaqillaaha fii naa ragalal yàlla ci nun ñu ne ah mu ne waaw parce que bu làmmiñ waxee lu ñu koy dóore moom làmmiñ kenn du ko dóor mu ngi ci biir yaram la ñuy dóor léeg-léeg ñu pes ca lex ba lu tax la làmmiñ wax léeg ñu kurpañ ndax la làmmiñ wax léeg-léeg ñu dóor aw yat ndax làmmiñ wax léeg-léeg sax ñu dóor pistolet wala bomb wala ñoom seen te aw làmmiñ ma wax ma tax kon mbokk yi ndekete làmmiñ moom sàmm ko lu jara bàyyi xel la sàmm ko ci farata yi la bokk yonent bi nee na waajaa ngi nii ab baat rek la wax baat bi sax ku moom garaaw la ah. waaw pour dem moom garaawul maa yatabayyanu fiihaa garaawul waaye ndekete garaaw na ba tax ñu dugal ko sawara naq ko ca biir ba mu àgg ca suufa suufa suuf loolu nag ñun ñëpp a ko war a moytu sunu kemtalaay kàttan kon hadiisu tey bi tam moom dégg ngeen ni mu tëddee innal abda la yatakallamu bil kalima maa yatabayyanu fiihaa yazillu bihaa ila naar abada ma abada ma bayna al benn baat la wax baat bi pour moom garaawul waaye digganteem ak maanaam ni ko naq ci biir sawara tol ni diggante penku ak sow jërë ngeen jëf ci topp ngeen di topp Ali Imran TV bi nu umee koor ba léegi jërë ngeen jëf yàlla na yàlla nangul ñu ci te mu nekk lu ñu jariñ ñun ñëpp euh, ña ko ci enregistré te garde ko mën ko enregistré garde tabarakallahu mu nuy fàttali di leen fàttali yàlla na yàlla sàmm nu sàmm leen yàlla na yàlla aar nu aar leen suqali suñu kër gii di